الحمد لله الكريم سلما على السخال بفرود وسمن سكرت لأنه قد سخن لوطن بي نفى مع القنين وخادني إليه بالتهاني من بعد ما سبب التخيل وجرني في إلى العلوم والفوز والأمل بالمحلوم ثم الصلاة بسلام تبعا على الذي خطي عن تبعا هل الذي من بمراد اقتدى fi sirri wal gannaaw poste de santé bi mu jot a tabax fale ca Touba Lansar ci atum 2018 mu dikkee woon ko téeméeri million ak fanweer ak ñett Touba ca kanam jot a tabax yeneen ñett poste de santé ci ay gox yu fasanti ko ci dëkk bu sell bi di Touba. booba reel mu dikkee ko téeméeri million ak ñaar fukk ak ñett yu toftali koppar alxaayri nufuusi war rajimi hasa wayni alyawma yaa waabu xayraka fi daarayni laa axaabu wa innani yaa barru yaa karimu daayin wa an sukrika laa arimu munsu jasabtani ilayka yaa muin عناية منك إلي لتعين فقمت مشوبا إليك منك بك عليك ورديت عنك مفودا مسلما إليك أمري معاجرا لما لديك ثم إليك لا إله سواك خسرت لما لم أجد سرواك فجدت لليوم بخير من غريب وخدتني إلى اختفاء سنين من بعد ما قدمت داء الناس يدخلني في سرك الخنازير وكدت للأمراء والإقراع أسد في تالف والإخراع kër gol téeméeri million ak lu yées tuuti ñaar fukki million ak juróom وفي اتقال بهدى معلومي فقلت ذا سكر وسا توسلي بالمصطفى سفي عين الرسل وببني وبناتي ما يسع في سريع الأجمال وببني وبناتي ما يسع في سريع الأجمال يا بر يا غفور يا عليم إني أخمر دائم مليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أكول يا مالك يا خالق الأنام هوي نوايا علل المنام يا مالك يا خالق الأنام أمد نوايا خليل المنام يا خالقي يا كامل الصفات لك اشتكيت كثرة الآفات وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأغنني مرامي daaru xadim juróom ñetti fukki million ak benn ak lu toftal tuuti la poste de santé dikke Touba ca kanam wa nuti ukabinajil mustafa سنتي البيداء يا من اصطفى يا خافر الذنوب يا خريب إني عبيدنا هنا خريب لأبساك والإخوان الجميع سعادة الدارين عقل يا سميع هب لي في هذا دعاء الإجابة بالمصطفى والآل والصحابة lépp tënku ci ñett téeméeri million ak fanweer ak ñeent Touba ca kanam daal di jël ay matériel yu takku daal di cay tàbbal ànd ak i kilifa dem ibbi yooyu bërëb بحرمة المعبود إبراهيم وليسقي على طيب وخير جيران بأخ الطيب وسفني في باطن وساعر وربي قلب أخ تائر وسفني في باطن وساعر وربي الخلق بأخ تاعر Touba ca kanam ci kàddu président bi Abdou Fattah Gueye ak coordonnateur bi Serigne Abdou Lahad Mbacké Abibu fësal pësteefu kuréel bi ci yokk poste de santé yi waaye indi ay saafara ci jafe-jafe yi nga xam ne askan wi ñu ngi jànkonteel moom ci dëkk bu sell bi di Touba. te Touba ca kanam mébétam mooy carte sanitaire bu Touba mu dugal ci loxoom jàpp ci ba bokk ci carte sanitaire yi gën a ci Sénégal te lu yomb yomb liggéey boobu nag bu koy def. Touba ca kanam ñi nga xam ne weer wu dee ñu joxe ci ñaari téeméer lu Touba ca kanam réalité ñoom ñoo ko des te ñooñu mooy mbooloo bépp waaye ci biir mbooloo municipal bi nga xam ne suñu abdoulaye moo ko jiite ci état civil bi ñu informatiser ko liggéey ci liggéey bu wóor ba nga xam ne ñiy gane àdduna ak ñiy wàññi dañ koy xam ci saa si ak ñi fi dëkk si loolu day tax jamono bu nekk ñuy xam population bu Touba ñaata la ba liñ leen di mën a liggéeyal liggéey bi mën a dëppoo ak population ndax fi mu ne nii buñ demee ci ANST seen i recensement li ci nekk par rapport ak boo jógee fu mel ne boobu rek dem kër gol nga xool distance bi da ngay xam ne li ñu wax ne moom la Touba doon ci population ak réalité bi dafa mel ne yàlla jaay te foog ñu xam ko ngir gën koo bàyyi xel murid yi te mooy Touba ca kanam jàpp nañu ne dëkk bi lu fi war ñun la war kon ku fi ñëw di def daal dañu jàpp ne ñun ngay jàppale lee ma doon wax léegi day jëm ci wàllu yoon ak administration yu ni waaye murid bu nekk li nga gëm mooy dëkk bi ñu fiy def lu nekk yow lañ koy defal boo xasee ba gëm loolu nag da nga jàpp ne luñ fi luñ fiy def kon yow yaa war a jiitu ña koy def loolu yi nag la mboolem murid yi Touba ca kanam yi ànd ak Touba ca kanam ci liggéey bi loolu lañ xam moo tax weer wu nekk takk takkatoo di ci sonn su ngoon bu dem ba jëkk di dajale alal yi dajaleem alal yooyu nag liggéey bu rëy rëy la waaye la muy rëy rëy am na bu ko gën a metti mooy saytuwaat alal yi ba delloowaat ko fi taxoon murid yi joxe ko loolu mooy baatu laaj lu ñu man di ko def fu ñu ndax liggéey bi kat sëñ bi dañ naan sëñ bi lañuy ñuy liggéeyal ndax sëñ bi moom dëkk bi waaye nun ñi noo koy ñoo cay faj yoon yi ñoo ciy jaar ndox yi ndox bu dee ndox ñoo koy naan bu dee ay tëli ñoo ciy jaar kon dañ naan liggéeyal ko moom dëkk lu fay def moom ko defal waaye nag kon ñun ñi ko ñoo ko wax ko ndax bu toon tubaay kenn ku nekk population bu ne réew nga ne wala dëkk ba nga ne waa ngaa fexe ba mu jag ba la nga fa soxla man faa am kon war nañ cee yokk si it bu baax ñu ngi ciy gën a soññ taalibe sëñ tubaay yi fu taalibe bu nekk fu mu nekk mën a nekk ci àddina te te tey gis Touba ci kanam mu xam ne kenn woowu ko ci aman te dafa mel ne bu fekkoonte ne ni ko si ay waxe woon taalibe yi déggee woon nañ ko ni te wuy see ko kon de kon ñaari millions yi di ñu amoon am nañ ko ba yàgg ndax sëñ ko ne xam na ne am na lu ëpp ñaari millions yi taalibe kon taalibe yi nañ delloo si xel yi ci te fii ne lii du yëfi sëñ Abiibu du yëfi sëñ Muntaxa du yëfi kenn yëfi sëñ Touba te liñ fiy laaj ci sëñ Touba dong lañ koy delloo kon daal loolu danañ ci soññ taalibe sëñ Touba yëpp ñu gën ñoo xam ne ñoo ko bokk am na loo xam ne itam état la war ci ab dëkk am na loo xam ne xam ne am nu leen ci wax ñu bàyyi xel commune bi itam xam ne moom it am na lu ko wax ci dëkk bi loo xam ne tubaa Ca Kanam a ngi koy jàppale donte moom xamal na ko boppam te waxtu wu ne mu di ko wax kon nu xam ne loolu dañ ko wax ànd waaye nag nun taalibe yi am pas-pas am itte takku tuddi Touba Ca Kanam ndax Touba Ca Kanam moom mooy mooy mbooloom sëñ Touba mépp kon ndax képp koo xam ne sëñ Touba nga yaakaar yaakaar na bëgg nga Touba boo fi boo sañoon dunde bi dee fi dekkee boo mën boo fi mënta boo sañoon boo faatoo ñu andi def suul la booy dekk te suuf soo xam ne boo sañ sañoon nag boo faatoo la fa waa ngaa waa nga bala ngaa dugg ci suuf sa nga jëf te suuf sa loo xam ne boo dugg ci suuf sa suuf sa mën laa seeral kon nun ñëpp kon ku yaakaar sëñ Tuubaa waa ngaa bàyyi xel Tuubaa ci kanam ndax su suñu laa dafa ne woon dëkk bi Tuubaa mooy dëkk bi ak li ci aj waa Tuubaa mooy ñu yaakaar sëñ Tuubaa ak fu ñu mën ne kon ñu yaakaar sëñ Tuubaa ak fu ñu mën ne nañ xam ne ñoom lañ tàllal loxo di ñëw wuy si liggéey mu nekkoon jotaay bu am solo yu ay kilifa yu takkoo takku fekke woon bokk ci ñooñee Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadre porte-parole xalif général di murid lépp lu ñu woote rek ñëpp ci war a ndax lii ngeen def rafet nañ ko bu baax ndax mbooloo lépp dafa jëm ci seen Tuubaa ab liggéey nag balaa baax nosu balaa mën a jëm fenn tam faaw bu tegu ci yoon nag mooy nosu bi rek li ñuy jëf lépp ñàkk weer jëm mooy tax mhm. Cheikh Cheikh Mouhamadou Mountakha loolu ci kon Touba ci kanam li muy def teg na ko ci xam-xam teg ko ci yoon loolu dañ koy rafetlu di ci sant bu baax dañu àndoon aussi dem poser première pierre u structure yooyu yëpp teg xeer yu njëkk yi sëñ bi ñaan ci yàlla dogal ñu ñëw fekk tey ñu koy ubbi kon ñu ngi sant bu baax te di dalal xel yi ci nii poste de santé yi monsieur le sous-préfet wax na ko dinañ def suñu kenn kentalaayu kattan ngir mu amal njëriñ nit ñi amal njëriñ nit ñi nag mooy dinañ fa yóbbu ay docteur yu xarañ loolu ñu ngi ciy liggéey depuis bi ñu jotee correspondance yi nga xam ne Touba ci kanam joxe na ko ci wàllu maintenance ak entretien aussi service technique yi nekk ministère dinañ accompagner district bi ngir maintenance bi mën a jàppandi ba poste yi ku fa dem xam ne fii kat liñ fi def sàmm nañ ko. Touba ca kanam moom kuy murit war na caa bokk kuy julli sax war na caa ndax Touba mooy njiglaayal waxuma Sénégal waaye njiglaayal adduna Touba bu doxee rek adduna seen dox bu lépp naatee rek adduna seen naat moom du wujju kenn Touba mooy bokk at yéen la tiitu niirul balal adduna bu leeree tubaa jërë ngeen jëf ñu ngi yeesalaat di fedd waat suñu taalibe liggéeyal seen Touba dong ñu ñoo am na lu te sëñ Abibu bu ma yëkkati woon waxtu bu ko la ca des rek ci gàttal kon mooy soññ mbooleem ko bokk ci seen Darou Assane ci turu sëñ Abdul Qadir niñ ko waxee woon barki démb bu ñuy yeewee rek sëñ bi mi ngi soññ képp ko bokk ci sëñ Darou Assane xam nañ ni sax ñi ngi ci doon yëngu waaye ñu gën a feddaliku yokk seen i jéego ndax maa ngi fi taseeg allah ji mayib mu wax ma ni jëwriñ la ci waa diaspora bi ah kon loola tax na nu xam ne ni ñi ngi ci doon yëngu sëñ Ibra Gueye mi ma àndal muy jëwriñu sëñ Mbàkke Mariamu it xamal na ma sëñ Mbàkke Mariamu da leen a soññ ci daayira bi ba tax na ñu ngi laaj ay rosi ngir yóbbu ko ci daayira boobu xam ne moom la ñuy wax jamaatul xayri ngir ñu ànd ci liggéey bi kon waa kër sëñ Daaru Asan ñi ngi ci te dañuy gën a laxasaayu gën a jëm ci kanam fee ca quartier bëgg Bamba xam nañ bu baax ni soxna Mbeen Balla jëwriñ li ci liggéey bi ak ñam ko àndal kon ñu ngi ci yéen ñi nga xam ne yéen lañ jox lañ jox poste yi maa ngi leen di soññ bu baax sëñ bi bu ak Touba ca kanam gi kër waruñ ñoo gën a gore ndax na ngeen xam ne ñaari téeméeri murit yi lañ dajale ñëw defal nu ko foofu ñaari téeméeri murit yi moom la sëriñ bi dajale ñëw nun jox nu ko kon nag nun war na noo am ngor gu toll ne sàmmal ko ko sàmmal ko ko ba bu ëllëgee du fa gis lu mu ko naqar du ko fa dégg nun olof nag danoo tàmm saa bu mbir mu mel nii ñëwee noo ko yàqal sunu bopp ndax noo fay ñàkk di di di xuloo di xëccoo di ŋaayoo di wootante ay daraja di bëgg alal bëgg a naxante ba far yëf yàqu loolu nag bu mu ñu dal ci suñ poste yi nañ ci taxaw taxaw bu wóor te te teg ko ci dégg ba bu ëllëgee gi si biir ñoom ñii ñu ko joxoon du ñu jéppi waaye am na noonu de ku ni def boo léegi gis ci biir ñi la ko joxoon day ñëw bis jéppi la xam ne yow mérité woo ko te waruñ la ko war a defal ndax ñeneen ñu mel ne ñu ne nga fii kat wala ñu ñu raw waaye nu la ko yàlla taw feexal kon nu itam nag nañ wanee ne lii mérité nañ ko nañ wane ne lii mérité nañ kon sëñ biw mbooloo maa ngi nii di la santaat bu baax di santaat Tuubaa ca kanam bu baax di di yeesalaat suñu jaayante ak suñu engagement ci liggéey bi nun kat yu ne moomatuñ suñu bopp xëy na bu njëkk dañ koo doon def nii mën nañ ne ngir yàlla la waaye fi ñu toll nii kat ngir yi la la dafa da ngeen ñoo defal loo xam ne lii kat fekkee ngor a nga fa fekkee ngor a nga fa fekkee jom a nga fa boo geestoo da ñu gis ñun administration suñu wàll ak suñu taxawaay mooy taxaw seen wet jàppale leen lii ngeen xamante ne bi moom ngeen def ci wàllu santé bi lépp loo xamante ne bi wàllu personnel la dinañ ci jël ay matukaay lépp loo xamante ne bi wàllu renforcement matériel la di leen ci jël ay matukaay sunu warugal daal mooy taxaw seen wet bu administration weesoo nag ñun ci wàllu doomu aadama lu ñu am ngeen bëgg ko ñu jox leen lu ñu am Touba ca kanam soxla ko ñu jox leen di xamal ne rek Abdou Lahad bu dul maire Abdou Lahad ka taalibe Sëñ Tuubaa membre Touba ci kanam boo xam ne li ma waxoon rek kenn du ma ci jiitu kenn du ma ci ëpp Pastef kenn du ma ci man d'abord balaa mairie bi ñëw loolu ci avant mairie pendant la après la mairie loolu yëpp nag ñëpp xam ne Abdou Lahad moom man ko du waa ci kanam loolu di di di wax na rek lépp loo xam ne xalaat la bu jógee ci Touba ci kanam ñu xalaat wala ñu war koo jëf wala ñu di ko jëf maa ngi ci burut ba maa ngi ci ca oh. ci jëf ak wax ak xalaat ak action bu mën a doon ci sama jëf ak sama xel ak sama logistique bi nga xam ne suñ borom dénk na ma ko te ñu soxla ko ci wàllu ñu ko mën a soxlaa te loolu li wéy firndeel la maa ngi maa ngi déglu rek lan ban yitte lañu lañ la Touba Kanam am ci action bu mën a doon ci ñu doon caabi commune bi nag dóorén waxoon naa ko daaw ci daje bi bi ñu daje fii ca daje ba newoon naa leen ñaar lañ dama yàlla na ko Abdoulahat Ka bi seen tuwaa membre bu xaj a kanam waaye ma jiite commune conseil municipal bi ànd ko ak conseil yëpp ñuy membre Touba ci kanam commune bi lim ci war a def dana ko def bu dee xaalis boo xam ne war na koo participer dana ko participer bu fekkee ne at li mu wax document administratif la boo xam ne war na ko participer dana ko participer bu fekkee ne loo xam ne administration la nag dana ànd ak commune bi ak administration participer ko ni nga xam ne ni la ko teg réew mi nangoo ak lu waaye